jafe na jafewul jafe na parce que da ngay changer comportement wu nit te changer comportement wu nit nit ku nekk na nga yaroo dañ la yare sa biir kër ak na nga yaroo ci biti pour nga soppi comportement am day jafe jafe-jafe ci dafa bëri ay mbir yoo xamee ni làqu na ci mbirum accident démb euh, suñu gan ngi euh, bokk di président UNAPAS wax na ko du mbirum chauffeur bi yore otom dong def accident waaye am na lu jiitu loolu ku ko jox permis moom chauffeur bi ba mu mën a yore benn instrument de mort nuñ ko mën a woowee ba war a mën a faat bakkanu nit ci tali ka ko jox permis est-ce que moom ci boppam am na agrément bu ko mën a permettre auto école ba pour mu def euh, jàngale dawal fii gis nañ fay auto école yoo xamee ni benn oto la ñu yore oto boo xamee ni amul spécificité wu oto pour auto école ndax oto bu bu baax pour auto école yow miy jàng dawal ka jàngal dawal yow frein ya nga am pédale yi nga am moom moom lay am ci biir otom demal ci auto école yi defal le tour des auto écoles yi nekk ci biir réewum Sénégal jëlal Dakar rek sori na boo demee Sénégal bu ñu le reste du pays demal ci auto école yi nekk fii ci Dakar boo ci wàññee ci juróom yi nga xame ni dañuy def auto école boo meetul benn moo ci am euh, dispositif yooyu nga xamee ni moom moo war a nekk ci oto yi ñoom ñoo yore oto yoo xamee ni c'est valable pour mën a jàngale dawal moo tax lu bari ma jàpp ni mu ngi ci moom euh, secteur bi gën a compliqué ci wàllu transport euh, terrestre aérien gis nañ li fi xew bërki démb waaye tamit ci wàllu infrastructure ak yu ni mel conseil présidentiel war na am ci wàllu woowu parce que euh, tribune mu ngi koy wax quatre morts dans trois accidents mais benn accident dina la defal seize morts dix-sept vingt morts ci benn accident ñu lay naan ni ubbi nañu ab enquête chaque jour nga dégg enquête de mais ba léegi defuñu benn point de presse ne ni li waraloon accident nangam li ko waral chauffeur bi moo dawalul nu mu war a dawale wala ña ko waroon a contrôler muy police wala gendarmerie contrôler wuñu ko ni ñu ko war a contrôler yoon ba mu jaar lañu waroon def defuñu ko oto ba mu yore que moom oto bi euh, visite technique ba sax nu mu ko yóbbee baaxul ak yeneen ak yeneen ba léegi déggoo ko mais tant qu'il n'y aura pas cette ci tali bi on aura tous les jours des accidents de la circulation yoo xamee ni dañ koy mettre lu cinq minutes après c'est terminé même les journaux je le répète n'en parlent même pas dans les plateaux tey on parle de Pastef politique <laughs> euh, damay tooñ sama mbokk bi Ablaye on va parler de politique jël lépp ne non tong tong am na wala jox nañ kii diw jox nañ langam alors que am na yeneen yu taxaw gis nga BRT bi man su ma doon gouvernement même les ministre mes ministres yi nekk ci biir sama gouvernement ñi nga xamee ni seen i département dafa parc dafa nekk ci yoonu BRT bi xamul lu ma leen di wax seeni oto teg leen ko même bu dee benn yoon ngeen utiliser ko parce que da ngeen di war a génn ci Dakar pour dem se nemmeeku seen i département yi nekk ci euh, ci ci ci biir euh, réew mi mais chaque fois que c'est possible garez vos avec votre administration dugg leen ci BRT wala dugg leen ci terre parce que même sur le plan de l'environnement da doon lu baax xam nga ñuy wax ay oto yu ñu war a yu war a consommer gaz ça existe déjà yenn taxi yi seen Iran yi dafa am ñaari kii la maanaam essence la wala gaz et c'est, c'est pas nouveau euh, maanaam ci àdduna am na réew yoo xamee ni mais ba ñuy yoree oto yu consommé gaz ca date pas d'aujourd'hui wala auto yu électricité électrique les voitures électriques mais regarde les télévisions françaises mais chaque jour on te fait la promotion des véhicules électriques parce que jamono mooy dox gis nga ñun ñu ngi naan am nañ pétrole am nañ gaz gaz bee ñu ëppal importance que pétrole bi parce que dans le monde pétrole boobu nga yoree de plus en plus ñu ngi koy teg nele parce que dafa am ay jeexital ci wàllu environnement maanaam amatul njariñ ba mu amoon ci ay jamono tey gaz bi la ñuy jël ak yeneen i mbir yoo xamee ni euh, ci lañ koy dugal y eu une étude ay japonais defar oto boo xamee ni mais boo maytul day indi révolution ammoniac la ñuy la la bi di dawee maanaam ndox ak air ammoniac la ñu wax ni moom la ñu lay def ci ci oto bi gaz ak yooyu yëpp dañ ko ciy remplacer donc quand le monde évolue les gens doivent également évoluer et je pense que c'est dans cette euh, optique-là le gouvernement bi nekk dafa ñëw fekk fi benn projet boo xamee ni mais on ne du lépp ngay jël sànni ci mbalit am na lu baax BRT bi bokk na ci lu baax mais nañ ko continuer euh, nañ ko améliorer mais surtout comme l'a dit le ministre El Malick Ndiaye diminuer le coût peut-être du transport pour les usagers mais également ñu xool tali yi parce que ça pose problème ni ñu defaree tali BRT yi ça pose problème parce que dañ lay defal ñaari voie pour BRT bi defal la benn ab xus pour yeneen tali yu euh, yeneen oto yi ba il suffit benn oto panne kenn dootul dem te mënoo yéeg ci ci tracé wu BRT bi loolu tamit je pense qu'il faut que ñu xoolaat ko. macha bi tàmbalee daw Pape Makoura Diène le ministre ñëwaat ci prix des prix qui sont abordables nekk si diggante 400.